s'ils restent encore dans l'ombre pour la plupart, c'est par dégoût de l'espace politique. Mais cet espace politique est le nôtre et nous devons y restaurer l'esprit véritable de territoire sur l'apport de tous les systèmes de contribution de ses fils et de ses filles. C'est pourquoi, à l'entame de mes propos, je voudrais porter un témoignage sincère de toute ma reconnaissance ainsi que de toute ma gratitude pour l'intérêt que vous portez à la commune de Thiès-Ouest car vous avez compris qu'au-delà de nos différences, nous avons en commun la commune, le terroir à qui nous devons faire don de notre personne pour sauvegarder ses intérêts dans tous ses aspects. Aujourd'hui, comme demain, L'esprit de territoire doit prévaloir sur nos chocs d'ambition au profit de son développement, dans tous ses aspects par l'atteinte des objectifs nécessaires et irréversibles à son épanouissement. À ce titre, nous devons trouver les éléments et autres termes de référence dans la recherche des règles de jeu, d'une judicieuse politique de bonne gouvernance locale que implique par sa vitalité et sa crédibilité la prise en charge des intérêts vitaux des populations, de sa jeunesse, ainsi disqualifiée ou délaissée. Le diagnostic demeure accablant, tant au plan institutionnel dans les domaines et secteurs clés prioritaires répertoriés, catégorisés tels que l'éducation, la santé, la culture, le sport, la sécurité, constituant des défis, enjeux et urgences à relever pour restaurer le moral des populations et de sa jeunesse. Nous tous, nous savons que Thiès euh, a presque priorité sur tous les secteurs, les secteurs vitaux de l'éducation, comme on l'a dit tout à l'heure, Nous avons quand même presque toutes les écoles qui sont en délabrement au niveau de Thiès. Euh, il y a même euh, au niveau du département, à l'heure où nous parlons, nest pas, des, comment les appelle encore, des, des provisoires. Donc ça, vraiment, c'est pas digne, de la commune de Thiès, de la région de Thiès ou du département de Thiès, parce que Nous avons comme territoire les départements, avec, euh, n'est-ce pas, l'acte de la décentralisation. Alors, Thiès est regorgé de, de, de, ressources naturelles. Thiès ne devait pas souffrir d'aucune, n'est-ce pas, incapacité de pouvoir, euh, euh, de pouvoir, n'est-ce pas, euh, entretenir ses fils et ses filles. Parce que Thiès a du pétrole. Thiès a du phosphate, le meilleur d'ailleurs. Thiès regorge, n'est-ce pas, du, de, de, plusieurs formes de phosphate. Nous avons l'apaturgite qu'on utilise, n'est-ce pas, pour le sucre. Nous avons, n'est-ce pas, le phosphate d'alumine, euh, n'est-ce pas, de, euh, des, des, autres pays comme l'Inde et autres. Généralement, c'est stoppé par ces, ce soldat de Taïwan qui est presque transporté tout à, euh, au, à Donc Thiès euh, également a presque plus de, plus de 50 km de côte. Thiès a du pétrole offshore, Thiès a du gaz, n'est-ce pas, ici à Ngadiaga. Donc Thiès également ressource, à, à regorge euh, de phosphate de silex utilisé pour la fabrication des carreaux. Thiès est vraiment très bien servi naturellement mais malheureusement ñun ñëpp gis nañ Thiès ni mu demee rien ne marche à Thiès nous avons vivons dans une oisiveté totale surtout les jeunes que nous appelons encore une fois à rejoindre la grande coalition Wallu Sénégal pour qu'on les pour qu'on les assiste au au soir n'est-ce pas du du 23 euh, janvier 2022 après les élections, après, après notre victoire, après la, grande victoire, n'est-ce pas, de la grande coalition Wallou-Sénégal, nous, serons à vos cheveux parce que la jeunesse des Thiès est totalement malade. Consciente de cette situation, la, coalition, la grande coalition Wallou de la commune de Thiès-Ouest, dans une démarche proactive, inclusive dans cette conception du programme triennal de développement implique les populations à travers des forums de quartiers Pencou et une donne géostratégique de rupture avec l'ordre politique ancien. Je vais m'arrêter sur, n'est-ce pas, cette euh, démarche proactive et inclusive. Donc ça nous permettra euh, certainement de d'être très proche, n'est-ce pas, de cette frange de population handicapée que nous allons quand même prendre, que nous allons cajoler, que nous allons entretenir. J'en ai des amis, ils sont très mal entretenus, c'est presque une population oubliée. Je pense que nous avons un programme, un programme excellent, n'est-ce pas, pour entretenir les handicapés de Thiès. Donc nous avons un programme, comme on l'a dit, une démarche proactive et inclusive. Euh, cela est d'autant plus possible car la substitution à la tête de son futur conseil municipal d'un leadership de type nouveau, tant de son profil, de l'itinéraire de la démarche assumée par la grande coalition Wallou-Sénégal, qui souhaite un modèle achevé, nest pas, de la démocratie euh, participative. Nous avons également un programme c'est disons des pichenettes que je vais faire en euh, lisant le discours, simplement parce que nous avons un comme je l'ai dit tantôt, c'est pas le moment aujourd'hui de le temps même ne, peut pas nous le permettre, mais nous allons quand même le dévoiler avec le temps euh, et nous sommes très conscients et nous espérons que, n'est-ce pas, la population va voter, de la grande coalition Wallon-Sénégal. Nous avons aussi un programme de euh, remembrement, n'est-ce pas, de la commune de Thiès-Ouest. De remembrement et d'alignement. Parce que nous tous, nous avons, nous avons ciblé des quartiers qui sont très mal lotis au niveau de la commune de Thiès-Ouest. Nous avons aussi que le partage est inéquitable. Parce qu'en fait, Si on voit par exemple euh, la, la, le quartier Fayou 1 et Fayou 2, je pense que ce n'est même pas légal et inhabitable de le. Je pense que M. Euh, Fall va quand même un petit peu grincer les dents. Mais ce sont les populations qui le demandent. Ils veulent quand même que Fayou 1 et Fayou 2 se rapprochent, nest pas, euh, euh, sur, la commune de, dans la commune de Thiès-Ouest. Parce qu'en fait, légitimement, Euh, du point de vue aussi géographique, Fayu et Fayu devaient être rattachés, n'est-ce pas, dans la commune de Thiès-Ouest. Donc là aussi, nous y travaillons et je pense que euh, nous avons quand même travaillé avec les comités de quartier et les chefs de quartier qui nous ont donné leur avis favorable. Et je pense que là aussi, ce serait une démarche que nous allons quand même faire euh, le moment venu où nous serons quand même à la tête de cette commune. Ce rapport Sous ce rapport, elle propose aux populations, la commune de Thiès-sous-Souyour ainsi qu'à sa jeunesse, un nouveau type de parlement constitué de conseillers municipaux responsables, régulateurs sociaux qui, avec un accent particulier, accompagnent l'acte historique dans l'élaboration des programmes de société en intelligence avec, la population, avec les populations, euh, dans la correspondance dans la responsabilité et euh, la solidarité. Donc là aussi, du conseil municipal, nous allons, entre guillemets, constituer un parlement municipal. Donc là, c'est un, c'est disons, un jet que nous allons essayer de faire et voir quand même qui sera, euh, disons, expérimenté au de la commune de Thiès-Ouest, parce que le parlement, il est beaucoup plus légitime vous êtes euh, parlementaire <laughs> donc madame Hélène je parle sous contrôle je pense que là aussi ce serait quand même une très bonne euh, initiative parce que consacrant une alternative dans le système de gouvernement local historique parce que le nouveau conseil élu met à contribution les populations ainsi que la jeunesse à travers la mise en place des comités de quartier opérationnels au plan communal Donc ces comités de quartier qui sont en voie de distinction et qui assurent la plupart avec quand même euh, sous contrôle, nest pas, de la sécurité publique, ces comités de quartier, possibilité quand même, euh, et le programme euh, pour, le, pour, pour le faire. Le nouveau système de gouvernance locale assure l'impératif de laisser aux générations futures une commune euh, de Thiès-Ouest. de notre rêve à chaque citoyen trouve les moyens de vivre lestement, dignement son besoin, objectif immédiat et son décollage socio-économique. moom la journaliste yi di laaj mais balaa boobu maa ngi leen di wax ni carte électeurs yi nga xam ne euh, ñi bind woon te mënuñoo voté mooy ñi nekkoon non inscrit te demoon bind ci sous-préfecture yi carte électeurs yi ñëw na. na ngeen dem yéen ñi ak seen récépissé ngeen dem ni seen carte électeur carte électeur nag du fo mooy carte d'identité su fekkee ne jot nga ko na nga ko denc bu baax a baax a baax fonk ko parce que soo ko amul doo mën a voté kon loolu aussi ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy euh, di xamal pour ngeen pour ngeen yóbbaale ko donc je disais que ne Thiès comme ni ma ko waxee Thiès warul am maanaam Thiès dafa ndóolu Thiès warul am population Thiès waruñu sonn soo population Thiès ñu nekk en oisiveté comme ni ko jeunes yi nekkee parce que Thiès dafa am dafa am euh, dafa am mbell moo xam ne moo fi nekk dëkk la boo xam ne suñu borom daf ko daf ko defal maanaam tawfeex ak xiiwal boo xam ne ñun ñëpp war nañ ko xam Thiès am na am na am na pétrole mi fii ci Kayar Thiès am na phosphate phosphate yu bari am na ko soo demee lam-lam bi phosphate bi nekk moom la ñuy defaree suukar nga dem ba phosphate ba fa nekk moom la ñuy defaree engrais boo mën a gis àdduna ak acide phosphorique nga dem maanaam euh, Taïba encore am na phosphate ba fa nekk moom la ñuy defaree caro yi mooy silex soo weesoo tuuti ci kaw dégg nga avec euh, euh, waa australiens yi ak américains yi am nañu zircon bu ñuy defar mooy phosphate boo xamante nii moo gën a ci àdduna te Sénégal moo nekk deuxième wala troisième producteur mondial. phosphate boobu nag maanaam ci région Thiès bii la nekk dégg kon loolu moo tax ñu ne Thiès warul maanaam ndóol ci kaw loolu aussi Thiès am na gaz gaz mi ngi fii ci Ngadiaga Thiès am na ñaay légume bu ñor Sénégal li ci ëpp muy légume wala maanaam meññeef di fruit Thiès gi ci département Thiès foofu la ñore fii ci Mboro kon Thiès suñu borom am na lu lu mu ko defal soo ci doole leen aussi mu nekk biir Carrefour jege Dakar lool am nag maanaam euh, foncier boo xam ne euh, bu ko ëpp valeur actuellement fii ci Sénégal bareetul parce que Dakar jeex na takk kon ñoom ñëpp daw nañ ñëw ci jees kon Thiès comme maanaam Thiès rek moo fi des ci suuf boo xamante ne am na valeur bu jege dakaar yaakaar naa ne ñun waa Thiès war nañu seet suñu bopp bu baax seet loxo yu sell comme ni ko honorable waxee léegi ñu jël ko teg ko ci seen loxo ñu jàpp ko jàpp bu sell saytu ko def ko noo xamante ni maanaam njariñ bi dina dellu si maanaam ci waa Thiès. ci suñu commune bii na nga xam ne mooy Thiès Ouest comme ni ma ko waxee amul benn commune boo xamante ni fii ci Thiès boo xamante ni boo ko nekk en position la parce que sooy dugg Thiès su dee da jóge Dakar foo ko mën a jógee rek su dee autoroute ci commune Thiès Ouest ngay jaar am na sax ñu mën a siffler naan da ngay def soo fi defee géej di récolter donc loolu yooyu yëpp dañ koy seet parce que euh, ni ñuy utiliser maanaam xaalisu commune Thiès rafetul jaaduwul ci yoon soo jëlee maanaam euh, budget prévision deux mille vingt deux bi jox naa ko presque romb na cinq cent millions mais cinq cent millions yooyu. man naa ne quatre-vingt pour cent yëpp dañ doon def fonctionnement man dama ko lire sama yaram dafa daw kon dafa mel na ñoom dañuy tibb rek di lekk loolu kenn mësu ko gis budget budget budget budget commune nga jël quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent nga def ko fonctionnement fonctionnement mooy maanaam say oto sa essence say tukki dégg nga sa ñi ngay àndal sa ñi ngay ak maanaam yenn sax yi nga xam ne dañuy def lu ñu mën wax loolu lépp ngay jël xaaj ko def ko ci sa bopp léegi nag nga jël 10 pour cent rek maanaam yow su doon 400 millions wala 500 millions man nañ ne maanaam benn 50 millions ngay jël dugal ko ci ci ci ci maanaam askan bi loolu mu doon lu ñaaw loo xam ne bokk na ci li ñuy xeex fii ci au niveau de la commune de Thiès Ouest en tout cas daal su yàlla defee ñu may ñu ñu nekk ci commune bi euh, agent de développement local lañu def nañ ko fanweeri ak juróom-benn. soo demee ci Sénégal fi ñu jaar fépp suñu empreinte ma nga fa ci les les les plans de développement locaux donc loolu nag expérience foofu moom la ñu bëgg a jël andi ko fii maanaam comité Suez pour waa comité Suez suqali ñu ngi leen sant leen gërëm asalaamaaleykum indexé par des chantiers économiques structurants des mécanismes de protection sociale devenus assurément des défis et urgences à relever donc Nous prenons pour l'émergence, nest pas, de la commune de Thiès-Ouest. Nous le faisons avec eux. Nous le pouvons aussi par expérience professionnelle. Euh, je pense que je suis un produit de, de l'École nationale d'horticulture. Et qui dit horticulture, je pense que dit cadre de vie, dit environnement sain. Je crois que là aussi, nous avons quand même beaucoup d'atouts, n'est-ce pas, à faire de cette commune de Thiès-Ouest une commune qui serait quand même bien à vivre. Nous, allons, nous avons répertorié, n'est-ce pas, les zones, n'est-ce pas, à agir sur euh, les aménagements, sur euh, l'éclairage public, n'est-ce pas, et sur aussi euh, l'environnement et, n'est-ce pas, euh, l'enlèvement, n'est-ce pas, des déchets publics. Donc tout ça, nous avons quand même euh, des programmes là-dessus et je pense que le moment venu, nous allons quand même le soumettre, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, à la je, termine, je termine, j'invite les électeurs citoyens majoritaires de la commune de Thiès-Ouest au sursaut du territoire dans l'une de voter le bulletin de la grande commune de la grande coalition mooy bulletin bi wane nañ ko fa tay yéen ñëpp na ngeen gis xam ko bu xàmmee ko bu baax a baax a baax a baax donc euh, à la jeunesse également l'ouverture de la porte sur le grand futur pour le meilleur des prières à tout le monde la puissance sublime de la Fatiha, essence du Saint-Coran, creusée de ses éblouissantes lumières qu'Allah nous par la baraka du sceau des prophètes Seydina Mohamed, la grande coalition Wallou Sénégal au soir de remédiation fonctionnelle au profit de la je di laaj mais balaa boobu maa ngi leen di wax ni leen carte électeur yi nga xam ne euh, ñi bind woon te mënu ñoo voté mooy ñi nekkoon non inscrit te demoon bind ci sous préfecture yi carte électeur yi ñëw na na ngeen dem yéen ñi ak seen récépissé ngeen dem seen carte électeur carte électeur nag du foofu. mooy carte d'identité su fekkee ne jot nga ko na nga ko denc bu baax a baax a fonk ko parce que soo ko amul doo mën a voté kon loolu aussi ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy euh, di xamal pour ngeen pour ngeen donc je disais que comme ni ma ko waxee Thiès warul am maanaam Thiès dafa ndóolu Thiès warul am population Thiès waruñu sonn population Thiès waruñu nekk en oisiveté comme ni ko jeunes yi nekkee parce que Thiès dafa am dafa am. Euh, dafa am mbell moo xam ne moo fi nekk dëkk la boo xam ne suñu borom daf ko daf ko defal maanaam tawfeex ak xiiwal boo xam ne ñun ñëpp war nañ ko xam Thiès am na am na am na pétrole mi fii ci Kayar Thiès am na phosphate phosphate yu bari am na ko soo demee lam lam bi phosphate bi fi nekk moom la ñuy defaree suukar nga dem Taïba phosphate ba fa nekk moom la ñuy defaree engrais boo mën a gis àdduna ak acide phosphorique nga dem maanaam euh, Taïba encore am na phosphate bu fa ne moom la ñu defaree carreaux yi mooy silex soo woowee sa tuuti ci kaw dégg nga avec euh, euh, waa australiens yi ak américains yi am nañu zircon bu ñuy defar mooy phosphate boo xamante nii moo gën a cher ci àdduna te Sénégal moo nekk deuxième wala troisième producteur mondial phosphate boobu nag maanaam ci région Thiès bii la nekk dégg nga kon loolu moo tax ñu ne Thiès warul maanaam ndóol ci kaw loolu aussi Thiès am na gaz gaz mi ngi fii ci Ngadiaga Thiès am na ñaay légume bu ñor Sénégal li ci ëpp muy légume wala maanaam meññeef di fruit cees gi ci département Thiès foofu la ñoree fii ci Mboro kon Thiès suñu boroom am na lu mu ko defal soo ci doole leen aussi mu nekk biir Carrefour jege Dakar lool am nag maanaam. Euh, foncier boo xam ne euh, bu ko ëpp valeur actuellement fii ci Sénégal bareetul parce que Dakar jeex na tàkk kon ñoom ñëpp daw nañ ñëw ci jees kon Thiès comme maanaam Thiès rek moo fi des ci suuf boo xamante ne am na valeur bu jege Dakar yaakaar naa ne ñun waa Thiès war nañu seet suñu bopp bu baax seet loxo yu sell comme ni ko honorable waxee léegi ñu jël ko teg ko ci seen loxo ñu jàpp ko jàpp bu sell saytu ko. def ko noo xamante ni maanaam njariñ bi dina dellu si maanaam ci waa Thiès ci suñu commune bii na nga xam ne mooy Thiès Ouest comme ni ma ko waxee amul benn commune boo xamante ni fii ci boo xamante nekk en position la parce que soo dugg Thiès su dee da nga jóge Dakar foo ko a jógee rek su dee autoroute ci commune Thiès Ouest ngay jaar am na sax ñu mën a sifflé naan la da ngay def gérit soo fi defee gérit <laughs> di de donc loolu yooyu yëpp dañ koy seet parce que euh, ni ñuy utiliser maanaam xaalisu commune Thiès rafetul jaaduwul ci yoon soo jëlee maanaam euh, budget prévision mille vingt 2022 bi jox naa ko presque romb na cent millions mais cent millions yooyu man naa ne 80 pour cent yëpp dañ ko def fonctionnement man dama ko lii sama yaram dafa daw kon dafa mel na ñoom dañuy tibb rek de lekk loolu kenn mësu ko budget budget budget budget commune nga jël quatre vingt à quatre vingt dix pour cent nga def ko fonctionnement fonctionnement mooy maanaam say oto sa essence say tukki dégg nga sa ñi ngay àndal sa ñi ngay dendal ak maanaam yenn sax yi nga xam ne dañuy def lu ñu mën ta wax loolu lépp ngay jël xaaj ko def ko sa bopp léegi nag nga jël dix pour cent rek maanaam yow su doon quatre cent millions wala cinq cent millions man nañ ne maanaam benn cinquante millions ngay jël. dugal ko ci ci ci ci maanaam euh, askan bi loolu mu doon lu ñaaw loo xam ne bokk na ci li ñuy xeex fii ci au niveau de la commune de Thiès Ouest en tout cas daal su yàlla defee ñu may ñu ñu nekk ci commune bi euh, agent de développement local lañu def nañ ko fanweeri ak juróom-benn soo demee ci Sénégal fi ñu jaar fépp suñu empreinte ma nga fa ci maanaam les les les plans de développement locaux. donc loolu na expérience foofu moom la ñu bëgg a jël andi ko fii maanaam comité Suez pour waa comité Suez suqali ñu ngi leen sant leen gërëm asalaamaaleykum wa